maa ngi sama kër donc mhm. euh, des fois nit ñi colporté ay rumeurs yoo xam ne da nga ciy maanu ni dégg naa donc mhm. loolu c'est une bonne chose euh, deuxième précision honorable mhm. euh, saaga am na ci kàddu Amin Ndiaye ñii bi dañ ko parce que non bàyyi ma wax la ko rek di nga ko fàttaliku parce que xam nga à l'endroit de Serigne Moustapha boo ne ku fi mel ni tama ñu tëggee la ñaari boor loolu loolu lan la ku fi mel ni tama ñu tëggee la ñaari boobu loolu dama jàpp ni wax bu ëpp la. léegi nag man dama bëgg a def benn analyse de fond. Mhm. parce que euh, man du ma député euh, mën naa am benn détachement pour xool législature bi. Mhm. yaakaar bi mu yaakaar bi mu la mais ma ne tama ñu tëggee la ñaari boor du saaga. ah ku fi ma ne tama ñu tëggee la ñaari boor. ah kañ saaga la boo ko jëmalee ci ñaari boor boo ko jëmalee ci. amuñu tëggale ñaari boor mooy la ci yenn kilifa saaga la. xamal loolu si si homme politique lañ ko jëmale. kenn responsable de parti. kenn ñemewut a janoog mm. sëriñam di ko ko. di ko di ko waaw. <laughs> non non waxu ko en tant que sëriñ da ko wax en tant que chef de parti. soit. Mm-hmm. Ah, ah, léegi euh, xaar man danaa wax li ma ci xalaat. léegi léegi dans dans le dans le principe. Mm-hmm. kenn mënul rafet lu euh, ñaari góor di xeex. asamaak góor di dóor jigéen loolu kenn mënu ko affaire euh, honorable c'est pas parce que daan na fi am rek que c'est normal que muy am parce que moom nee na bii dafa ëpp c'est vrai que Omar Sarr dóor nañ ko fi ba xotti vestam El Hadj Diouf dóor nañ ko fi Mame Diarra Fam dóor nañ ko fi yooyu yëpp ñu ngi koy fàttaliku y a eu des pugilats à l'Assemblée mm-hmm. mais c'est pas parce que loolu dafay am ci assemblée bi ak ya des rek ñu war koo def aada loolu du aada bu rafet lu war a dañ la ci hémicycle bi parce que Absolument. débat d'idées moo ñu fa yóbbu comme il l'a dit c'est la deuxième institution de la République bu ñu leen di tuddee honorable mhm. c'est parce que dañ leen a ormal dañ leen a jox cër kon ñoom dañu war a ormal institution bi ormal seen bopp léegi nag Sénégal dañuy attaqué wu aux causes euh, aux effets plutôt ba noppi fàtte causes yi mhm. day mel ni rek dara dafa xëy xëy rek ni jonn ci table bi te mhm. dara juru ko am na lu ko waral voilà euh, damay gën a reculer parce que configuration assemblée. musul am ci indépendance ba léegi moitié moitié entre l'opposition et le pouvoir kon ñun tey ji ñu ngi doon séntu une assemblée de bien meilleure qualité boo xam ne débat bi dina am benn intensité boo xam ne sax xëy na ñenn ñi duñ ko mën a soutenir. Mm-hmm. à la place li ñu gis mooy une stratégie de de de sabotage. sabotage euh, venant euh, de la mouvance euh, du du du parti au pouvoir parce que. gis naa ay image yu Koura Macky par exemple barte Barthélemy Dias di wax muy xataraayu ni day jëm ci moom. Hmm, sànni ko daal sax est-ce que Barth xaj na ci moom. loolu aussi lan la est-ce que est-ce que loolu loolu loolu du reewante est-ce que loolu du provocation. Hmm. léegi bu fekkoon ni moom xam nañ dañ koy jàppale. mais image imagine ñu ñu bañ ko téye xam nga kersam dina ko may mu du ko may mu wàññeeku. Hmm. bu demee ba àgg ci moom Barth tëgg ko mbéj mu daanu léegi dañ koy porter plainte. jàpp ko le maire de Dakar. doy na waar mais loolu du indi du indi trouble à l'ordre public. Mm-hmm. mais cas de figure yooyu de part et d'autre dañu war a def appel comme ni ñu naan appel au règlement. Mm-hmm. dañu war a def appel à la responsabilité. parce que quand même euh, euh, législature bi c'est pas une législature à saboter c'est pas parce que euh, euh, amatoo fa doole ba nga fa amoon rek da nga war a euh, suuxat ay comportement yoo xam ne day tax ñëpp ni ñii ñoo yem. maanaam yaakaar bi ñu amoon wonni na. ok léegi nag l' opposition est tombée dans le piège de Benno. ah bon ah oui dañ leen am dans l'ordre depuis. ah ci assemblée bi ci assemblée bi depuis le vote. du bureau de l' assemblée nationale bi ñuy voté président assemblée nationale. Mhm. gis ngeen dañuy voté au au au forceps. vote bi jaarul yoon respecté wuñu règlement intérieur bi bëgg yi ñëw jël urne bi. Mhm. mais image boobu lañu fësal mais li tax ñu jël urne bi. li tax ñu voté au forceps mhm. lu tax ñu ay ay présent ñu jël ay procuration pour voter leen mhm. ñi bëgguloon voté ñu jël seen këyit pour voter leen yooyu kenn posé wu ko ci ci ci ci ci ci débat mhm. ci jamono joo xam ne euh, ñu ngi jànkoonteeg benn tournant bu décisif euh, ñu ngi jëm vers 2024 Sénégal mu ngi am ay dossiers yu bëri ci table defoon nañu fi dialogue politique pour trouver un consensus entre les acteurs politiques autour du processus électoral bi nga xam ne daf leen mës a boole. Mhm. ñëpp a ngi fàttaliku xeexu parrainage bi. article L ak L euh, L ak yooyu yëpp mu doonoon loo xam ne dans une hémicycle boo xam ni euh, la balance est équilibrée. Mhm. mënoon nañ ci trouver ay consensus yoo xam ne ñu jëm vers des joutes apaisées parce que Sénégal parce que man dama fekkee démb ak tey. Mhm. saa yu amee ay troubles à l'ordre public ay jéeya. Euh, du parce que dañuy yokk dund bi. ok mais c' est souvent des problèmes de démocratie mooy indi ay tensions ci dëkk donc assemblée boobu man dama amoon yaakaar ni dina obligé pouvoir ak opposition ñu wax par force. Mhm, parce que honorable bu ngeen bëggee voter loi organique. Mhm. nga xam ni day requérir quatre-vingt-dix-neuf députés. les trois cinquièmes de l' assemblée nationale. mënul nekk sans débat mënul nekk procédure d' il faut ngeen waxtaan. ak opposition pour convaincre leen de l'utilité de cette loi pour la république bu ko defee ñoom négam Sénégal lañ fi nekkal su dee Sénégal lañ fi nekkal bu dee loi la boo xam ni. Mhm. ci njëriñu Sénégal la jëm mais danañ ci ànd ak yéen voté ko kon. ce ce dialogue parlementaire la moo doon attitude bu ñu séntu woon. Mhm. dans les deux cas mais est-ce que est-ce que dialogue am na plutôt que non attends plutôt que ñu traduire seen opposition en haine. Mhm. que waxee dënn parce que Amy Ndiaye dënn la doon waxee mel ni ba noppi c' était pas le sujet Moustapha Sy mhm. débat parlementaire la woon c' est un ministère qui devait passer man gisuma benn rapport ak Serigne Moustapha Sy c' comme si dafa am benn objectif de communication boo xam ne da doon tontu moom ki ko ki ko jiitu si si si kii pupitre bi waaw moom la doon tontu mais kooku waxul woon ci Moustapha Sy kooku dafa ne waaw ñoom seen leader saa yu soxlaa saa yu soxlaa ay force de l'ordre fële champ de course seen seen seen euh, à l'occasion di gàmmu dañ leen koy bañal à chaque fois ñoom daal ministère de l'intérieur il s'adresse au ministre de l'intérieur mais waxul ak au ministre de l'intérieur mais loolu xam nga bu soxlaa mhm. duñ ko jox loolu la doon loolu la doon kaas waaw d'accord am na droit moo fi xam nga xam nga ah, honorable honorable ça ça a un déglu rek parce que il a tiré c'est c'est c'est le gouvernement attends attends attends dafa def dafa def benn requête dafa def benn requête ci wàllu sécurité que ñoom bu ñu xewlee ministre de l'intérieur bi nga xam ne moo fa nekkoon du ko jox moom sécurité kooku jàmbat la tawar la assemblée c'est le cadre pour ça donc loolu euh, du du yoonu Moustapha Sy ba ñu ciy wax il faut ngeen nangu ni euh, ku fi bindoo ni tama ñu tëggee la ñaari boor wax bu ëpp la bu jéggi dayoo la te mënoon a ñàkk mhm. il faut ngeen nangu ni bu Barthélémy Dias di wax kuréel mag yi di ko sànni daal wala di xatraay du jëm ci moom ça peut poser problème. Mhm. bu keneen di wax ñu koy chahuter loolu def naa du permettre un débat un débat serein monsieur Diouf man gis nga man man Sénégal laa gëm. bu gii di saaga un ministre qui di ko manquer de respect. du yoon. léegi bu ko cautionné fu mu mënti jóge du que ça vienne du que ça vienne manque respect son excellence le président de la république yoon la wala du yoon. non euh, son président le président nekkul assemblée. ah mais mais ñoom ku jóg il tire sur le président. non tir tiire ak ak saaga du benn. xam nga président kenn saagawu. non mais te on peut on peut le critiquer. ok non mais bàyyi ko mu daaneel. admettons admettons admettons voilà. admettons moom bu fekkee ne dañ ko saaga. Mhm. yéen teg leen saaga bi. d' accord mais may may may ko mu daaneel mooy tama ñu ñu tëggee la ñaari boor rek loolu saaga la léegi léegi euh, euh, li li ma li ma yaakaaroon mooy euh, ñu am une assemblée boo xam ne vraiment rupture yi ñu soxla leeral yi ñu soxla dina ko mën a opérer parce que. par A ou par B. Mhm. bu ngeen soxlaa loi organique wala loi constitutionnelle il faut ngeen waxtaanee ko parce que procédure d'urgence munutul am vote sans débat mënutul am parce que y a un équilibre au niveau du bureau et au niveau des sièges de l'Assemblée nationale. donc mhm. man ni ngeen defee appel au réglement noonu ngeen war a defee appel à la responsabilité parce que ñun Sénégal la ñu jiital donc te yéen yéen a fay ndaw askan bi opposition comme pouvoir je suis de sensibilité de l'opposition mais dans un plateau damay bëgg am un peu de détachement pour wax en tant que citoyen parce que aussi j'ai un mouvement citoyen j'ai pas une carte de parti politique mm-hmm. kon ñun loolu lañ doon xaar parce que y a beaucoup de problèmes yoo xam ne man man ngi koy maa ngi koy ngi koy séntu pour mu am solution euh, assemblée nationale même bu ma ko député Benno Bokk Yaakaar mën a porteel sax l'essentiel c'est que ce problème soit posé sur la table mm-hmm. parce que dama jàpp ni problème mu Sénégal la opposition bi daanu na ci piège u euh, euh, pouvoir bi nga xam ne euh, par provocation foog ñoom ñu def am réaction léegi réaction boobu la ñuy jël monter ko en épingle def ko événement national def ko mhm. sujet de débat national ci jamono joo xam ne y a des dossiers beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup plus sérieux mhm. yoo xam ne jurul tole bi yëpp jurul commentaire yëpp jurul titre yooyu yëpp mhm. parce que suñu ñaari agent de sécurité yoo xam ne disparaître nañu kenn ki feeñ na ci anam bu neexul kenn keneen ki ñu ngi koy wër loolu dafa mel ni euh, agression contre euh, Amine Ndiaye moo gën a important ces problèmes assez graves qui touchent la stabilité et la sureté de l'État mm-hmm. ci benn dossier boo xam ne depuis le début ñu ngi koy topp mooy le dossier euh, de Ousmane Sonko loolu yëpp même linkage la. Mm-hmm. kooku nañ ci nañ ci ñëw si prend garde. Mm-hmm. nañ ci ñëw ci beneen pàcc dana yóbbu dëkk bi. ca ca ca goutte. te loolu moo gën a important. ay dérapage yu député yu yu ñuy wax parce que. Euh, plainte am na ci yoon a ngi. yoon ngi ci te mën nañu mën nañu teg loxo ñaari député yooyu. waaw euh, bu ci parce que procureur comme comme dugg na ci mbir mi. fi may daanelee rek fi may daanelee rek. Mhm. violence du violence physique kese parce que le député Makhtar Diop boo gisee nee ko li nga wax metti na Clédor ba ci kanamu yàlla. Mhm. parce que dafa ni opposition bi ay lacrymogène doyatul ci ñoom dañ leen takk. jéng leen ceene leen tàbbal leen géej jën yi lekk leen te dara lu ci dikk bal du tàkk c'est violent c'est violent kenn relevé wu ko kenn dégg naa dégg naa ñu wax ko wax ko ci assemblée bi. dégguma ko sax loolu si ne ko ne ko loolu nga wax noonu aussi ñu dis am am ñu disparaître aussi. ci contexte bi nga xamee ni. Mm-hmm. ci contexte bi nga xamee ni ñu ngi dëj Fulbert Badji. Fulbert euh, Sambou mm-hmm. euh, ci la wax lo wax loolu dafa dafa dafa war ma et à sa suite. un autre député dit en 2024 nous allons marcher sur vos cadavres car on ne reculera pas. ku wax loolu. benn euh, député ki sant Seck xanaa da nga absenté. mooy sant Seck si si mooy ki sant ah, Seck ah nekkatuloo assemblée. nekkatuloo ah ok sant benn député bu sant Seck il paraît que c'est un socialiste. donc Benno Bokk Yaakaar la jóg. Cheikh Seck Cheikh Seck voilà Cheikh Seck. yaakaar naa moom la Cheikh Seck nee na 2024 ils vont marcher sur nos cadavres. parce qu'ils ne reculeront pas donc loolu c'est le troisième mandat qui va s'exercer comme disait Aliou Dembourou Sow euh, même avec des sabres xam nga parce que Aliou Dembourou Sow waxoon na fi lu mel noonu léegi bu ñu demee ba député wax lu mel noonu. c'est grave un député. ñu mhm. koy wax honorable c'est condamnable c'est, c'est, et ça c'est de la violence. Mm -hmm. il faut pas qu'on se focalise sur une gifle ou un coup de pied mais propos yi. c'est attentatoire à la paix publique. ok et à la sécurité. merci Clédor jërëjëf jërëjëf ma ñëw ci Moussa Fall. Euh, sëñ musa hmm. xew-xew bi am assemblée nationale gis ngeen kàddu yi Clédor wax ak li yi honorable wax. Hmm. Ah, ci lim lim li fa jib yëpp. Hmm. mu lu kenn xam ne yenn yi sax kenn mënu ko mënu koo nettali. Euh, naka nga jàngatee li xew assemblée nationale. bon jërëjëf euh, Mass mm-hmm. di la gërëmaat di la sant bu baax mm-hmm. euh, vraiment di condamner li fa xew ah mm-hmm. di ko naxarlu bu baax a baax te vraiment dama ci bokk ak Sénégal yu bëri ah vraiment image yu ñu gis ak li xew assemblée vraiment metti na Sénégalais yëpp vraiment parce que tamit xaaruñu député ci lu mel nii absolument vraiment te dama jàpp man gëwuma ne li ñu témboo moo indi lu mel nii parce que tey treizième bi amoon na foofu je pense que yàlla député de Louga ak Ousmane Sonko jote nañu fa. Mm-hmm. am na fa ay jotaay ak jotaay yi def loolu. je pense que mm-hmm. Clédor a parlé de problème de responsabilité. Mm-hmm. je pense que li am solo.